asalaamaaleykum mbokk yi déglu Rewmi FM 97.5 dalee nag jàmm ci seen émission SOS santé ñu ci ànd ak yéen ajuma ju jot lu ko dalee 18h jàpp 19h di ci waxtaan lépp lu ñeel wàllu wérgu yaram tey ñuy euh, dalal ki nga xamante ne moom mooy euh, Abibatou euh, Sylla moom nag mu ngi nekk njiital soxna yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci syndicat bii di CSA mu représenté fi tey comité bi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu xeexum feebar bi di Covid 19 te kuréel bii di CSI. daal di koy kon financé euh, bu ko defee kon dañ koy jox kàddu mu nuyoonte ak mbokki auditeurs yi balaa ñu dugg ci waxtaan bi. Euh, waaw lay matu jàlloo sunu journaliste bu ak suñu doom ju rafet yi te baax ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay. nuyoo bi ñu lay nuyu ñu ngi koy ñu ngi koy jàllale nga jàllaleel ñu ko ci bépp membre bu nekk réew mi FM. Mm-hmm. di kontaan ci dalal bi nga ñu dalal. ci ñëw tey waxtaan ak yéen ci SOS santé. Mm-hmm. waaye nag may nuyu tamit seeni auditeurs Rewmi FM tabafakala macha allah eh, wax dëgg si yàlla mu nekk rajo boo xam ni ñun dañ ko sopp lool surtout ñun jigéen ñi. Mm-hmm. ndax eh, émission bu day na ko SOS santé loolu parce que bu ñuy wax santé jigéen ñi la gën a soxal. Mm-hmm. moo tax eh, ñu kontaan ci seen invitation bi. di nuyu ñëpp. di gërëm ñëpp te di wax ni comme ni nga ko waxee rek tey dañu ñëw bëgg waxtaan ci campagne bi ñu bëgg liggéey ak euh, coalition des centrales syndicales mm-hmm. nga xam ni ñun dañoo ànd bokk ci benn kuréel bu ñuy wax ci ci Afrique ñu koy wax confédération syndicale internationale bu Afrique loolu la ñu bëggoon tey ñëw waxtaan ak yow si kàttanu yàlla. Mhm. dañ lay jaajëfal bu baax ci disponibilité bi ak surtout déplacement bi ak intérêt bi ngeen accordé également suñu émission SOS santé donc tey euh, yow d' abord yaa ngi nekk euh, présidente jigéen yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci CSA euh, nga présenté ñu un peu CSA pour peut-être ñi nga xam ne ñu ngi nekk ay auditeurs di ñu déglu te xamuñu ko. waaw lay matu. dama nekk présidente jiite jigéenu confédération des syndicats autonome du Sénégal ñu koy wax CSA Sénégal bi nga xam ni camarade secretaire général Elimane Diouf moo ko jiite. loolu muy mbooloog jigéen yoo xam ne dafa ëmb 45 organisations waaye li gën a indi sama taxawaay tey fii muy dama ñëw représenter comité de pilotage bu coalition des centrales syndicales du Sénégal. Mm-hmm. nga xam ni dafa ëmb juróomi centrale ci Sénégal juróomi centrale yooyu euh, CNTS la CNTS FC la CSA bi ma bokk la UNSAS ci la bokk ak UDTS muy juróomi centrale yoo xam ne li leen boole mooy dañu def coalition dem bokk see si Afrique mm-hmm. juróomi centrale yooyu nag président di Guiro mooy seen coordonnateur mooy coordonnateur tam CECI Afrique. donc ñooñu bi ñu jotee euh, lettre bu fa jógee CECI Afrique dañu ñoo wax nañu constituer kenn ku nekk secretaire général da yoon ni ñu dem bokk nekk juróomi représentante des secrétaires généraux ñu ñëw bokk def loo ubbi yore loo xam ni moom la ñu woowee le comité de pilotage pour la campagne de lutte contre la Covid 19. donc pour si Afrique. Mhm. boo xam ne ñun fii Sénégal juróomi central yooyu ñoo ciy liggéey. Mhm. loolu mooy suñu taxawaay tey fii ci réew mi FM. Mhm. Euh, kon ça veut dire que euh, tey jii da ngeen génn cadre CSA donc mun nañ nekkoon kon syndicat Sénégal yi central yi ñoom ñoo booleen ndoo seen doolee pour mën a taxaw ci xeex bi. waaw li nga wax dëgg la noonu la. Mhm. juróomi centrale syndicale ñoo dajaloo ñëw ni dañuy àndandoo boole seen doole ci liggéey. Mhm. te li may bëgg fàttali tuuti mooy bi dañ koy fàttali ndax xeex bi ñuy xeex muy xeex mbas mi. Mhm. xam nañ mbas mi bu mu fi duggee le 2 mars ba tey. coalition des centrales syndicales sous la coordination du camarade Mody Guiro dafa jóg taxaw ñoom juróomi secretaire généraux yi ma di leen nuyu muy Mademba Sock muy Elimane Diouf muy euh, mu tudd Cheikh Diop. Mhm. muy tam la camarade secrétaire générale Mariama Diallo ñoom cinq secrétaires généraux yi danoo dajaloo waxtaan seen biir ni ah lii kat dal na ci kaw liggéeykat yi ndax xam nañ ni mbas mi liggéeykat yi ci gën a sonn. Mhm. bi ñu demee ba président jël ordonnance vingt 20 avril bi bi mu jël ordonnance euh, mois d' avril bi mu jëloon pour. jëmale ko si liggéeykat yi wax ni ah mbas mi kat dikk na indi na ay problème liggéey yi taxaw na am na ñoo xam ne dinañ wàññi am na ñoo xam ne xëy na dina am ay problème kon kat nañu jéem a xool nan la au niveau du privé surtout nañu mën a fay di pour cent des salaires te nañu bañ a dàq bu fekkee mën na ni mhm. ba loolu amee centrale syndicale yi ñoo jóg dajaloo jël seen doole boole li ñu am dem yóbbu ko remettre que président de la république muy seen acte noble mhm. des centrales syndicales de la coalition mhm. dem remettre au président de la république une somme de 10 millions de francs CFA pour appuyer ko dans la lutte la la, la Covid-19 mhm. bi loolu amee ñu continuer ci ba tey teewul nag central bu nekk ci sa côté yaa ngi xeex mbas mi ak sa sa côté mais ñoom li ñu boole comme li ñu naan mbooloo mooy doole. Mm-hmm. loolu la ñu commencé gum di boole ay yeneen action ba action bi nga xam tey moom lañ nar a ci loolu tam la bokk. Mm-hmm. voilà mu am solo parce que euh, comme ni nga ko waxee liggéeykat yi ñoom ñoo euh, donc gën a impacté ci euh, mbir mi parce que bëri na ci ñoo xamante ne tey ñàkk nañu seen liggéey naam sax yaa ngi koy fàttali léegi ne njiitu réew mi dafa waxoon ne bu ñu waree bu ñu bañee mën a dàqee moo gën. tey euh, terewul am na ñoo xam ne tey toog nañu amatuñu liggéey donc loolu yi mu nekk ay dégâts collatéraux yi nga xam ne Covid bi def na ko léegi pour revenir ci euh, li nga xam ne moom mooy campagne bi donc campagne bi euh, ci kañ ngeen ko fas yéene lancé déjà. waaw Oulaymatou campagne contre la campagne de lutte de sensibilisation. Mm-hmm. contre la Covid 19 bii nga xam ni moom la ñu bëgg liggéey. bi ñu tegee comité de pilotage bi nga xam ni coalition centrale bi ñu ko tegee teg ko suñu loxo muy le camarade Cheikh Ousmane Diop bu CNTS man mi bu CSA Mademba Camara bu CNTS FC mhm. Aïssata Diallo bu UDTS ak Ahmed Saloum Basi bu UNSAS li ñu jëkk teg mooy bi ñu ko réunir ba pare mhm. dañ ne ah ñun ko dañu war a juble ci bépp élément buy liggéey ci santé sécurité mhm. dans au niveau de de de de des centrales syndicales. Mhm. mais li ñu njëkk wax mooy kër bu amee buntu kër day am néeg am saal am waañ. Mhm. ñu nekk lii kat lu ñuy liggéey waaye il faut ñu impliquer les femmes et ci loolu la ñu invité les présidentes de commission de femmes des centrales syndicales ak les présidents de comité de jeunes des centrale syndicales mu nekk élargir un comité de pilotage de quinze personnes ñuy liggéey ci mbas mi. bi loolu amee ñu waajal ay réunion naam sax kenn ku nekk yaa ngi liggéey mais ñu ni lii kat campagne bi nii lañ ko bëgg mënee niñ ko bëgg mënee mooy campagne de sensibilisation mm-hmm. campagne de rappel des mesures barrières campagne boo xam ne dañu bëgg a xeex mbas mi au niveau des entreprises au niveau des marchés au niveau des secteurs les plus touchés te xam ngeen ko secteur touristique kenn du ko nettalee di artisan yi dégg ngeen fan yi li ñuy wax euh, informel bi ñoom kenn bawu leen. Mm-hmm. ñëpp xam nañu ils sont touchés à presque cent pour cent donc yooyu ñooy suñuy cible pour l'instant transport bi. Mm-hmm. suñu cible la yooyu yëpp suñu gargotières yi restaurant yi parce que gis ngeen Kër Massar mbas ma na mu fa duggee. Mm-hmm. yooyu yëpp ay éléments yoo xam ni ci campagne bi lañ koy dérouler moo tax xam naa ne buñ ci yeggee dinañ wax nan la ñu fas yéene dérouler suñu campagne bi. ci kàttanu mbas bi mu ngi fi dugg depuis mars donc mars avril euh, tey def na six mois ñu ngi xeex ak li nga xam ne mooy feebar bi d'ailleurs sax tey mooy sixième mois bi nga xam ne ci la ko organisation mondiale de la santé wax ne pandémie la donc tey mooy sixième mois bi euh, donc tey kon ce qui veut dire que SOS santé ak émission bi ñuy def tey donc sa tombe à pic te am na sens par rapport ak tey célébration boobu noonu nga xam ne c'est une célébration malheureuse mais est-ce que yi euh, peut-être duñu ne seen jóg xaw na yéex par rapport ak li nga xam ne moom mooy euh, pandémie bi ak campagne de sensibilisation bi. déedéet déedéet ulay matu. Mhm. Euh, syndicat yi dañoo jóg seen jóg ba. Mhm. bu ma la waxee ba ñu dajaloo jël seen doole dem joxe. Mhm. kenn ku nekk da nga taxaw sa côté sa centrale nga yëkkati sa commité santé sécurité au travail. parce que xam nañ ni am na bu dee dañu installer syndicat bu nekk wala centrale bu nekk da nga installer un comité de veille et d'alerte pour accompagner les travailleurs dans les difficultés mm-hmm. ñun ci CSA dañu am comité de veille et d'alerte boo xam ne am na ci santé sécurité au travail am na si conseiller juridique ñuy dem di xool en tout cas def na circulaire ba nga xam ne travailleur bu am jafe-jafe fu ngay liggéeye ñëw nga ñu gindi la teg la si yoon accompagner la donc loolu forme xeex la loolu desul muy góor ñi si centrale yi muy jigéen ñi femmes yi laay wax comité femmes yi kenn ku si nekk def nga ay action de sensibilisation jël nañu ay masque jël gel yóbbu ko par exemple mairie parcelle jël nañu trouver ay solution yoo xam ni dem fu mel na marché au central marché poisson mhm. dem def fa ay action de sensibilisation parce que ñooñu donc il faut gis nga geste barrière yi ñuy wax mhm. ba tey nit ñi des na assimiler buñ ko donc yooyu la ñu war a dem di ko assimiler nit ñi liñ naan la sensibilisation basique boobu il faut que ñu koy dem dans les couches les plus reculées dans les zones les plus reculées di ko wan nit ñi di leen ko fàttali pour ñu dem. centrale syndicale yi ñu ngi ci liggéey bi ba mbas mi ne salaamaaleykum ba tey centrale syndicale la preuve bépp événement boo xam ne amoon nañ ko pour organiser ko dañu def communiqué reporté ko. Mm-hmm. par exemple ñun dañu waroon am journée de la femme da ko def ndax. mais dañ koy reporté. ak journée travailleur yi. journée travailleur yi nga xam ni doon laa célébrer de façon presque sobre par exemple nit ñi dañ ko def vidéoconférence. Mm-hmm. parce que nag mbas mi tolloo na toll foo xam ni képp kuy liggéeykat ku dul liggéeykat sax centrale yi indil nañ la ab appui indil nañ la accompagnement di si liggéey donc pour dire que te yéexuñu si jóg. Mm-hmm. ñi ngi si. Mm-hmm. dafa fekk nag ampleur bu feebar moo rëyee noonu moo tax. affaire bi xaw a jafe. Mhm. xaw a metti waaye nag ñu ngi si bopp ba tey di accompagner les travailleurs. Mhm. fépp fut liggéeykat am soxla centrale syndicale yi taxaw nañ fa yéen ñi nga xam ne si ngeen di ngeen dégg événement yi xew. Mhm. waaw am na ñoo xam ni déggoon ngeen temps yee waa teeru bi dañu waxante woon 70 pour cent loolu la état wax ñu ñii ni 50 pour cent syndicat yi jóg ci taxaw déggoon ngeen fan yee waa King Fat Palace. syndicat yi jóg nañ ci taxaw fépp daal foo xam ne daal euh, jafe-jafe am na fa pour liggéeykat yi. syndicats yi taxaw nañ fa accompagner travailleurs yi parce que nekk nañu période boo xam ne solidarité bi dafa war a gën a renforcer wu nit ñi gën a jàppaloo. Mm-hmm. ñu gën a àndandoo pour xeex mbas mi mbas mi nga xam ni. wax dëgg si yàlla comme niñ koy wax lu la bett mën la waaye nag bu la daaneelee ba pare mm. nga jóg taxawaat janook moom foog naa ni syndicat yi loolu mooy seen taxawaay may fàttali rek mbokk yi ñu ngi dalal tey euh, njiital euh, jigéenu CSA yi donc mu bokk itam ci comité de pilotage ngir xeex wàllub mbas mi nga xamante ne euh, kuréel bi di CSI ñoom ñoo ko daal di kon taxawal ñuy lancé nag ab campagne tey nii campagne bi ngeen fas yéene koo amal nara def ay sensibilisation pense que loolu du ngeen ko yemale Dakar dina dem aussi ci yeneen euh, localité nga xam ne ñoo gën a reculer waaw euh, xam nga euh, ni nga ko waxee effectivement sensibilisation la ñuy def mhm. bi ñu ko xaymaa xam nga doole barewul mhm. waaye nag ñu am yéene yéene mooy cibler ay secteur secteur pêche secteur tourisme secteur transport secteur informel nga xam dañ ciy dugal restauration jaaykati mbedd yi vendeuse de rue ñoom ñëpp dañ leen ci dugal ba ci secteur transport jakartamaan yi am na nu yéene nag bu ñu ko doole gi mayee dem ba Thiès génn Dakar waaye pour l'instant dañu bëgg def campagne de sensibilisation sensibilisation bi dinañ ko def ji Petersen ndax boo ñëwee fu mel na Petersen lépp a nga fa mm-hmm. gargotière yaa nga fa mécanicien yaa nga fa transporteur yaa nga fa kon foofu rek déjà cible la mhm. xam nga oto ya mécanicien yi ca suufu oto ya ne ca ndox ma ne ca euh, surtout ak période nawet bii ñooñu boo leen sensibiliser mhm. bu ñu xamee fi ñuy teg seen tànk loolu day daal di dem ñu jël foofu ñu ne nañ dem port de Dakar port autonome de Dakar foofu tabafakaal la am na secteur formel am na secteur informel foofu yëpp fas nañu fa dugal fas nañu yéen itam dugg ci yenn entreprise yi bugguma lim comme dañ nekk émission mhm. ñu kii mais bugguñu dévoiler trop tamit suñu ay kii mais au moins ñaari secteur yu yu am importance yooyu dinañ te bu ñu ko yàlla mayee dinañ dem seeti jakartamaan yi mhm. bu ñu ko yàlla mayee dinañ génnaat gën a sore Thiès dem ba ICS ndax am nañu yéene dem foofu parce que foofu tamit c'est à forte mobilisation humaine. Mhm. war nañ mën a dem yokk sa sensibilisation ba donc si action yooyu daal la ñu bëgg a mëne si la ñu liggéey nag def suñu plan d'action def suñu calendrier boo xam ni dañ koy fas yéene dogal. di di di di doxal campagne boobu. Mhm. ñu fas yéene nag am ay bés yoo xam ne dañ ci tànn. yoo xam ne xam naa buñ ci dikkaatee dina gën a leer. Euh, campagne dina étaler wu sur combien de temps. Euh, xam nga xeex booy xeex loo xam ne xamoo kañ lay jeex moom day dem rek. Mm-hmm. danga naan je suis toujours en campagne. Mm-hmm. donc ñun centrales syndicales yi coalition des centrales syndicales dañ ni depuis ba ñu déclaré ni corona am na dañ dugg ci campagne bi te dañoo fas yéene ànd ak état du Sénégal campagne ak ñoom ba mbas mi jeex. Mm-hmm. waaye nag du tee di nga am ay moment fort. parmi ces moments forts campagne de sensibilisation bi nga xam ni on va le faire n'est-ce pas entre le mois de euh, septembre et le mois d'octobre mm-hmm. disons du 15 septembre au 15 octobre campagne ci diiru benn weer ci diiru benn weer mm-hmm. campagne bi nag nii la bëgg a tëddee nii lañ ko fas yéene tëddee mm-hmm. ñi ngi réunir suñuy suñuy état major ñi ngi def ay rencontre di def ay cibles moo tax bu ñu jëlee nag xale yi nga xam ne ñoo war a dem parce que ñu ngi defar ay matériel des outils de campagne mm-hmm. am nañ ay autocollants am nañ ay affiches plus de cent autocollants dinañ ko defar mm-hmm. dinañ defar ay affiches dinañ defar ay banderole centrale syndicale bu bokk ci si Sénégal coalition dinañ la defal banderole takk ka takk ka sa buntu centrale pendant toute la durée de la campagne et même la delà mais également dinañ defar ay kit de la euh, de la vage pour les mains central bu nekk lu mu gàtt gàtt dinañ la yóbbul ñaar bu ko defee yow tam nga jël ko yóbbu ko say entreprise wala say société parce que comme liñ laan doole moto loo gis rek ci benn lay doore loolu nag ñu ngi ko fas yéene def bu soobee yàlla le 15 septembre dañu bëgg def campagne de lancement bi au niveau de du siège de la CNDS ñu koy wooyee Kër Madia foofu la ñu fas yéene def le 15 septembre à 15 heures campagne de lancement de la sensibilisation de la lutte contre la Covid n'est-ce pas des centrales affiliées à la CIC Afrique. les cinq centrales du Sénégal, à savoir la CNTS, mmh. la CNTS FC, la CSA, l'UNSAS et l'UDTS. si la ñuy booloo foofu def campagne lancement de sensibilisation au niveau de Kër Madia euh, qui est le siège de la mu nekk siège u mhm. bu ñu jógee ci loolu dinañ defaat beneen journée. Mhm. nga xam ni centrale bu nekk dañuy dem yóbbul la sa kit de lavage parce que lancement bi dinañ ci invité ministère de la santé nga xam ne mooy ndeyu mbilli bi invité ministère du travail la caisse de sécurité sociale en tout cas tous nos partenaires ñu xam ñooy defar euh, gel yi ñoom ñëpp dinañ leen invité ñu ñëw jàppale ñu ci xeex mais également la mairie de Dakar duñ ko bàyyi ginnaaw ñoom ñëpp dinañ leen woo ñëw ànd ak ñun liggéey ñu àndandoo def campagne de sensibilisation bi def lancement bi bu ko lancé nag léegi buñ ci tegoo le 17 lañ koy la ñuy def yóbbu ñaari centrale yóbbu leen seen kit le 19 noonu lañ koy étaler bu ñu paree ci remise de kit yooyu ba pare dañuy daal di nag commencer dugg nag ci dëkk bi dinañ dem Petersen programme que pendant tant de jours dinañ dem port bëgg nañu dem seeti jakartamaan yi bëgg nañ sax dem ICS comme ni ma ko waxee yooyu yëpp ñu defaru sol suñuy lakos def suñuy casquette ànd dugg ci dëkk bi joxe suñuy autocollant joxe suñuy gel joxe suñuy masque wan nit ñi kat xeer mbas mi mi ngi fi syndicat yi liggéeykat yi ñun kat dañu ñëw jàppale leen ànd ak yéen ci xeex bi pour ngeen mucc ñu mujj Sénégal mujj bu ko defee mbas mi mën a dem yoonam. Mm-hmm. am na ay euh, li nga wax ni yëpp dafa am solo parce que sensibilisation bi du doy comme on dit. Mm-hmm. mais gis nañ ne askan bi aussi bëri na ci ñoo xamante ne loo sensibiliser sensibiliser dafay am ñoo xam ay récalcitrants parce que euh, nguur gi jëloon na fi ay euh, mesures pour que ñu mën a endiguer li nga xam ne mooy propagation beeg yooyu ci par rapport ak parce que yaa ngi ciy insister depuis sànq mm-hmm. mais gis nañ ne ci même transport en commun yeeg yooyu commencé waat nañu tàncaloo bi ak yenn toog yi ni nga xam ne mun na faciliter li nga xam ne moom mooy euh, contamination bi. donc nan ngeen fas yéene peut-être euh, sensibiliser ñooñu nga xam ne ay rical récalcitrants te duñu nangu des fois di topp yenn tettal yi. li euh, nga li nga ko waxee Oulay Matou loolu dëgg bu wér la. Mm-hmm. ku dugg ci bus tata yi. gis nga dañ lay wax sax toogal ci suuf suuf waaye li ñu bëgg a xam li ñu mën a li ñu war a def mooy li ñu war a yokk gën a def ndax sax nit ñaa ngi ciy def muy par exemple secteur bu mel na transport waa aftu yi gën leen sensibiliser bokk na ci li tax ñuy dem Petersen bokk na ci li tax ñoom ñu war leen seeti ñoom waa aftu yi pour que chauffeur bi ak euh, receveur bi ñu mën a jël seeni matukaay ba nga xam ni nit ñi tampaloo bii parce que nit ñi en ñoom ñoo koy bëgg am nga ñun sénégalais dañoo mën masla ak yërëmante da ngay gis ku jigéen taxaw fee bis bu fees mun la sarax ma sarax ma mën naa sax toog ci suuf bu loolu amee benn ñaar dañ koy wéyal donc sensibilisation comme ni ma la la sensibilisation basique bii ñuy def il faut ñu renforcer ko parce que comme li nga wax du ay récalcitrant de dañoo xamul bu ñu xamoon li ci mbas mi kon loolu duñ ko def comme li ma wax sensibilisation bi dañ ko def état bi tamit mi ngi ci mais état bi comme li ñu wax dafa war a continuer les mesures waruñu ko bàyyi état bi loolu mooy problème bi bu ñu jàppee tey mesure bu demee une semaine deux semaine nit ñi bàyyi ko sànq rek laay waxtaan ak kenn ku ñëwoon seetsi ma ma ne ko man de temps bi ñu defee état d'urgence damaa kontaan ndax sama fii benn bruit doo ko am da ngay teel a tëdd teel a yeewu lekk sa jàmm am sa jàmm mais vraiment état d'urgence waroon na commencé waroon na continuer kon pour dire que sénégalais ci boppam moo xaw a dëgër bopp waaye nag comme lii daf ñu dal fu te suñu suñu sacerdoce mooy dem xamal nit ñi ñi xamul ñi xam ñu fàttali leen foog naa ni si loolu la ñuy continuer di ci wéy mhm. euh, pour que vraiment mbas mi soxna si jeeg bi nga xam ne dafa ñëw toog suñu dëkk bi génn fi dem yoonam. Mhm. waaw ñun daal kenn bëggu ko daal na dem yoonam. kenn mhm. bëggu ko. yaa ngi wax lu am solo wax nga ni mesure d' accompagnement parfois état dañuy gaaw a bàyyeeku mais état dama seetlu aussi dañuy jël ay mesures mais mesure d' accompagnement du am. parce que tey bus yooyu par exemple peut-être bu doyoon bu ñu ko yokkoon comme comme il le faut peut-être tey tàncaloo boobu noonu nit ñi duñ ko def parce que tey nga war a xëy par exemple huit heures nga nga pointé sa bërëbu liggéeyukaay sa patron xëy na amul benn compréhension bi bus bi ñëw fees nga xaar benn bus deux bus trois bus bu ñëw fees donc en na moment da ngay dem yow ba nangu. soox boobu noonu. ñëw da lay ñëw toog ci suuf. pour nga mën a dem donc mesure d'accompagnement bu état bi peut-être foofu la la xaw a lajj. waaw loolu moom wax dëgg si yàlla on est au regret de le constater. nii mm. ni fermeté bi état war a am pour que. Euh, vraiment yenn débordement yi bañ a am loolu moom dañ koy dañ koy déplorer. Mm-hmm. ñun travailleurs travailleuses du Sénégal et de la coalition des centrales syndicales. Mm-hmm. parce que nag wax dëgg si yàlla xëy nga bëgg nga liggéey amoo oto loolu du ci yow. ci mm-hmm. état la kon état war na mën a yokk les transports. dëgg la gaa ils ont des chantiers parce que fan yi gis naa ñu ngi euh, defar tali BRT mais loolu yépp c'est à long terme. ce qui est mooy nañu wuti ay oto yu doy jox ko transporteur yu liggéey te bàyyi taxes yu cher yi ñu ciy teg bàyyi euh, li lu diis li ñuy teg ci ndodd population yi loolu mooy dëgg moom loolu moom vraiment et je pense que syndicat transporteur yi kenn ku si nekk ci sa centrale yaa ngi xeex loolu yéen a ngi xool nan lay kii parce que même taxi yi xam nga dañuy wax taxi ñaar ci kan gannaaw kenn ci kanam. Mhm. mais da ngay gis taxi bu def ñett. Mhm. te day romb policier policier du ko wax dara. Mhm. kon kay loolu xam nga ni faiblesse état la. donc yooyu yëpp ay ay ay sooxe la yu am ci doxalinu état yoo xam ne war nañ ko rectifier. te war nañ ko rectifier nag parce que balaa muy indi leneen. te état nag bu ñu tax ñu naan état doole moo tax ñuy wax état. intelligence moo tax ñuy wax état jaaral ci yoon moo tax ñuy wax état. donc xam naa ni eh, metti na mais nag il faut ñu wax dëgg. Mm-hmm. état dafa war a jouer rôle mm-hmm. liggéeykat bi bu waree xëy liggéeyi bañ a dem patron mise à pied ka wala mu licencier ka kon war na mën a teel a am jumtukaay boo xam ne war na ko yóbbu fa muy liggéeyee. Mm-hmm. loolu daal vraiment effectivement sooxe na suñu dëkk bi waaye nag comme li ñuy wax na état bi gaaw réagir parce que nag. Euh, syndicat yi daal ñoom ñu ngi taxaw lu baax ñu ne baax na lu bonul ñu taxaw jàmmaarloog état bi rectifier ko ànd ak moom. Euh, ci cadre boobu justement euh, tey ñi nga xam ne ñoom ñooy patron yi xam nañ situation bi nga xam ne am na ci période bi par exemple tey di ngay nekk entreprise boo xam ne yaa ngi nekk ville. sa liggéeykat yi ñu ci bëri ñu ngi nekk par exemple dans la banlieue xam nga ne transport bi yombul surtout ci période bi mais da nga gis ci ay patron yoo xamante ne dañuy am benn manque de compréhension bu xaw a doy wax bu ci am yéen tey en tant que peut-être syndicaliste lan ngeen mën a def ci loolu pour mën vraiment jàppale employeur yooyu yi. Euh, suñu campagne bi dañ ci boole les employeurs. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñoo nekk ak liggéeykat yi. ñooñu am nañu pàcc boo xam ne dañ leen war a sensibiliser dans ce dans ce sens. Mm-hmm. Euh, parce que nag euh, employeur ak euh, centrale syndicale yi ñoom ñëpp dafa am cadre ku nekk da nga nekk sa cadre. Mm-hmm. ñi nekk CNP ñi nekk CNES ñi nekk ci centrale yi ñu mais war nañoo mën am mat ak compréhension bu day na. xam les situations n'est-ce pas sociales parce que kat tey ji Oulaymatou yow tey boo may liggéeyal mhm. war naa xam xam naa ni say compétence mais war naa xam tout ce qui est social qui tourne autour toi mhm. lépp loo xam ni aju na si yow loo xam ne dafa mën na gàllankoor sa liggéey mhm. kon nag boofu euh, moom ñu ngi ñaaxaat patron yi foog naa ni loolu euh, war nañ ci mën a nag toog waxtaan mm-hmm. mais suñu campagne de sensibilisation bi nga xam ne ñi ngi def lancement bi le 15 septembre incha allah boole nañ ci employeurs yi am na pàcc boo xam ni le comité de pilotage war na mën a rencontrer les employeurs dans la sensibilisation bien vrai que ñi ngi def nag ay efforts mm-hmm. mais buñ ko gënee yokk moo gën mm-hmm. euh, yéen joxe ngeen 10 millions yéen syndicats yi central syndicat ñeneen yi million millions ñi cent cinquante ku nekk. ci sa côté jeune reporter di sa joxe nañ xaalis. Mm-hmm. Euh, te je pense que ne taskatu xibaar ñëpp xam nañ ne seen doole bariwul <laughs> mais tey est-ce que jàpp nga ni en tant que observatrice en tant que actrice gis nga ne euh, maanaam état bi conduire na euh, gestion bi de manière maanaam de manière efficace. Euh, Ouleye Matou euh, xam nga euh, bi loolu amee état dafa teg li ñuy wax force Covid 19. Mm-hmm. ñu jox ko benn général général François Ndiaye si biir géné si biir organisation boobu. Mm-hmm. centrale syndicale yi am nañ fa wàll am nañ fa ñaari représentant mm-hmm. ñoo fa nekk toogal fa syndicat yi te nekk nañ fa en tout cas ñun rapport yi ñu jotagum parce que si loolu la ñu mën a basé woo. nee nañu mi ngi jaar yoon xam nga nit nag ñoom ka nga yónni la mu la wax si loolu ngay mën a dal mais comme nag c'est en cours d'exécution mënaguñ ko xayma il faut nag mu jeex ñoom ñu rendre compte ñu mën a xam fan la exécution bu toll dëgg la nag bare na coow bare na coow distribution ceeb bi bare na coow moom daal bare na coow lool waaye nag comme ñun dañ fa am ay ndaw te ndaw ya waxawuñu loo xam ne bu jar na tax ñu yëkkati yëkkati suñu dënn wax donc moo tax dañuy taaxirlu ñu am les bon résultat ñu am la bonne information pour mën ko partager bu jaaree yoon ñu ni jaar na yoon bu jaarul yoon ñu yëkkati ku taxaw jaar fa ñu war a jaar wax ni jaarul yoon foog naa ni loolu tamit war nañ ñu ko ñun noonu la ñuy doxalee. parce que aussi euh, nekk syndicat c'est pas du désordre. Mm-hmm. munoo nekk fenn joxe fa sa alal pour jàppale état nga xëy yónni fa ay nit yu mat kilifa nga teg leen fa. pareeguñu la ñuy liggéey wala waxaguñ la loo xam ni safaan la nga bëgg jóg xam nga nag lépp loo gis dafay dafay dafay jaar yoon voilà donc loolu daal moo ñu tënk moo tax ñu ngi déglu. te gis nañ ne sax yéen syndicat yi ñu ci bëri dañoo amoon benn euh, trêve ñi peut-être ñi doon jóg di xeex yooyu am na trêve boo xam ne observé woon nañ ko pour xàccandoo doogandoo mais gis nañ ne ñooñu sax am na si ñoo xam ne commencé nañ jóg fi puwaat découragé. <laughs> donc tey est-ce euh, état bi demul ba def euh, Covid bi genre euh, maanaam couverture làkkukaay pour un peu daal daw peut-être ay responsabilité <laughs> ulay matu ulay matu li nga wax dëgg la parce que comme ni ma ko waxee rek feebar bi mu dikkee dafa bett ñëpp xam nga lu la bett mën la ba mu bettee na wax dëgg si yàlla di syndicat ña daan xuloo ña daan xeex ñëpp ni mhm. tekk parce que nag am na li ñu wax l'appel de la nation mhm. waaw mais ñi ngi doxal 5 mois 6 mois euh, dëgg la ak gis nañu yoo xam ni daal xaw na xaw na tey xel. Mm-hmm. kon nag nit ñi tamit il faut ñu ngi xoolal euh, du ma du ma du ma du ma la ko fàttali. Mm-hmm. waa su su keroog. Mm-hmm. nga yeneen ak yeneen. kon euh, xam naa ni daal syndicat daal li ma la mën a mooy ma nga fa mu nekkoon. comme ma nga fa mu nekkoon nag lu baax mu dem ca loo xam ne safaan wala mu jóg taxaw xeex ko. waaw malheureusement nag pandémie bi comme moo ñu yëg moo moo moo ñu dal il faut ñu xeex ak moom parfois nag dinañ yëkkati suñuy baat waaye tout temps sa que nous sommes des des patriotes il faut nag ñu xam ni ci réew mi la ñu bokk de que on n'est insensible à ce qui nous est arrivé muy euh, mbas mi mm-hmm. mais dëgg la parce que xam nga boo amoon sa métit ñu ñëw sotti la ndox mm-hmm. xam nga day sedd mm-hmm. waaye bu ndox ma wooyee du day jóg looloo dal seddkaay yi kon nag heure bu jóg jotee rek sooba yàlla dinañ jóg takkaat suñu ndigg taxaw fa ñu war a taxaw liggéey nañ ko war a liggéey waaw mhm. mhm. tey ji euh, ci wàllu euh, li nga xamante ni moom mooy ba tey côté gestion état bi euh, parce que loo gis rek dafa am préalable tey covid bi dafa wane ni am na secteur yu bëri yoo xam ne surtout santé nga xam ne dafa am solo ak éducation Euh, dafa am solo donc secteur yooyu daf dañ dañ leen demoon ba bàyyi leen gannaaw euh, Covid bi ñëw daal di wone place bi nga xam ne am nañ ko la preuve tey éducation bi duma la si wax dara parce que yow yow ci boppam jàngalekat nga donc yaa ma ko gën a xam tey abri provisoire yeeg yooyu noonu donc mu nekk situation yu doy waar système de santé bi sooxee donc doy na doy na waar démb rek ministre de la santé mu ngi annoncé que ne dinañ defaat quatre hôpitaux donc muy nekk des projets yoo xamante ne annoncé nañ ko mais bon peut-être effet d'annonce la loo xam exactement. waaw yow de journaliste bu la neexee nga ne effet d'annonce la waaye man seen syndicat damay téye xool déglu. Mhm. Euh, effectivement Oulaymatou li nga wax dëgg la. Mhm. secteur bu mel na santé secteur bu mel na éducation euh, dafa montrer dafa démontrer que ni. Mhm. leen nit ña daan wax mhm. naan def la ñuy def lañu en dara newu ci woon mhm. dëgg la Sénégal à un moment donné ministère éducation bi nga xam ne moom laa gën a miin ñi ngi doon xeex les abris provisoires mhm. mais dem nañu à un moment quand même euh, ah waxuma xeexatuñ ko de waaye des na bis boo demee tournée dem ci àll bi di nga xam ne abris provisoires yaa ngi fi mbas mi ñëw na ñu foogoon ne xëy na du yàgg parce que en fait erreur état loolu la état bi dañu foogoon dañ koy dóor mu daanu rek mu dem. malheureusement nag mu toog fi. te loolu moo mettre à nu les défaillances du système. Mm-hmm. muy éducation muy santé. xool xoolal santé fan yii li fi xew état bi nee na dama subventionné ñi personnel de santé bi yow mairie bee la fa dugal kenn du la fay. Mm-hmm. da ngay xëy heure di wàcc heure. injustice la et nous l'avons dénoncé et nous continuons à la dénoncer parce que nag du yoon. ñii collectivité locale moo ko jël parce que yow ki alors que yow parfois kooku sax moo ëpp li muy liggéey ki nga xam ne état moo ko jël. donc yooyu c'est des défaillances en tout cas Covid bi daal jàngal nañu lu bëri. jàngal nañu nit booy liggéey da ngay liggéey ci sérieux nit booy liggéey da ngay liggéey ci dëgg nit booy def da ngay def lu baax ak lu durable comme li ñu wax. léegi nag foog naa mbas mi xam nga lan lañ war a jàngal. avoir des comportements durables. comportement muy doxalin yoo xam ni ci dëgg lay tegu ak loo xam ne day yàgg. waaye def rek taf yëngal texal naa lii baax na immeuble bi maa ko defal j'ai fait quatre hôpitaux lii moo baax loolu moom vraiment war na fi jóg. Mhm. donc c'est des défaillances du système dañ koy dénoncer parce que nag euh, lu ñu gis la lu ñu teg suñu bët la. Mhm. mbas mi daal wane na les faiblesses. de l' état. ay mhm. foog naa ni foofu tamit dina xanaa état bi xanaa ah ñun nag suñu rôle mooy wax dëgg si yàlla bu ñu gisee lu jaaduwul ñu wax. Mhm. kon il ñu wax ko daal. Mhm. mbas mi en tout cas comme ni nga ko waxee wane na ay faiblesse mais tey tax na comme par exemple yenn gestes yi nga xam ne ce sont des gestes primaires ay raxasu ak yooyu tey nit ñi gën ci bàyyi xel te d' ailleurs yéen ngi ci fas yéene def lu am solo ak kit yi ngeen nar a distribuer ak yooyu noonu ak à bon waaw waaw waaw loolu la ñuy ñaan yàlla que suñu message jàll. Mm-hmm. parce que dañu def ay slogan pour les travailleurs et les travailleuses. Euh, kit yi dañ koy yóbbul ci centrale syndicale yi comité femme am na fa comité jeune am na fa donc bu ñu ko demee sensibilisation la bu ñu paree ci kit yi nañ distribuer ay masque ak ay gel. Mm-hmm. bu buñ koy distribuer te dinañ dem ci foo xam ni vraiment am na nañu yaakaar ne nit ñi dinañ déglu te dinañ am dégg-dégg parce que li am solo mooy ki ngay waxal mu dégg la mm-hmm. ki ngay waxal mu gëm li ngay wax il faut être convaincant moo tax nag dañu war dañuy préparer jeunes yi nga xam ni ak ñépp yi nga xam ne comité femmes comité jeunes yi nga xam ñoo war a dem sur le terrain le comité de pilotage pour la campagne euh, contre la Covid de la de la coalition des centrales syndicales dinañ former ay jeunes yóbbu leen defar leen jox leen les moyens ñu dem defi campagne campagne de sensibilisation ndax sensibilisation du doy changement de comportement yóbbu les bons mots les bons slogans au niveau des populations au niveau des travailleurs et des travailleuses parce que nag syndicat bu liggéeykat amul syndicat du am mm-hmm. kon nag loolu mooy suñu taxawaay tey moo doon suñu taxawaay démb te foog naa ci loolu la ñuy continuer di liggéey ndax liggéeykat yi ñoo ñu ñor seen wérgu yaram moo ñu ñor seen jàmm yaram moo ñu ñor kon il foog ñu ànd ak ñoom lee fàttali leen leeralal leen teg leen ci yoon ba nga xam ni nag vraiment euh, bu ñu jógee si lii mbas mi foog naa dinañu abal mm-hmm. Euh, euh, ñu ngi koy ñaan en tout cas euh, li nga xamante ne moom mooy mbas mi yàgg na fi donc nit ñi neewoon nañ leen il faut apprendre à vivre avec le virus donc ñoom it ñu ngi vivre avec le comme loolu la autorité wax ñu ngi dund moom ànd ah, ñuy def mhm. da takk sa masque boo dem nga raxasu man maa ngi nii ñaari moddu gel a sama saak mhm. anu may def mhm. sa kër bu nit bu duggee sa kër man moom aw ma kersa nit bu duggee sama kër dama naan la waañ waa nga ne demal raxasu ci mhm. def ma fa kit de lavage gaa waaye sama matériel de lavage a nga foofu génne sa mouchoir jox la ne la fomp ah loolu la ñuy def parce que nag même sa doom bu demee football bu ñëwee da nga ko naan demal nga te foog naa loolu comportement yoo xam ne dañ ko war a am ak wàññi nuyonte bi wàññi toogaay yi xew yi dem léegi dikk yi loolu dañ ko war a wàññi mm-hmm. ah man daal surtout yéen ni euh, ñun faam yi laay wax yow yaa ngi jiite ay femmes donc xew yeeg yooyu moom buñ ko tuddee rek dut ñu ci baaraam ñun jigéen ñi ah man de wax dëgg si yàlla sama comité femme bés mu nekk ñun ma présidente kañ la ñuy réunion man leen kaay leen ñu vidéo conférence mm-hmm. ndax nag avantage bi ñu am ci mbas mi mooy ñun jigéen ñi au moins def nañ ci ay vidéoconférence jàngal nañ ci ñoo xam ne xamuñu woon lan mooy zoom. Mhm. ñu am zoom def nañ dem nañ sax ba def si luuma ay luuma lañuy ñuy organiser luuma virtuel génne njaay yi foto yi kii bëgg na kii bëgg na ñu yónnee borom kooku jox cag-cag ku noonu lañ ko doon doxalee ak sama mhm. comité femme kon loolu tamit ay jàngat avantage yu ñu am la ci mbas mi mais jigéen ñi comme niñ ko dañoo bëgg dajaloo kaay leen ñu daje kaay leen ñu kii mais foog naa ni euh, comme li ma wax bu ñu jiitalee jigéen ñi parce que li may wax rek naan le secrétaire général Nations Unies waxoon négociation bu jugee jigéen bokk day nekk négociation durable. Mm-hmm. di waxtaan question sociale bu jigéen bokk day nekk question sociale buy aboutir kon loolu rek war na tax ñoom fu ñuy dem. lépp lu ñuy wax bu ci àndee ak jigéen ñi foog naa ni dina am solo campagne bi tamit wax dëgg si yàlla euh, comité de pilotage bi dama ci nekk nekk jigéen ñu jël ma jiital ma coordonnateur Cheikh Ousmane Diop ni ma demal nga wax au nom de di comité de pilotage et foog naa ni tey suñu émission bi wax dëgg si yàlla mm-hmm. am na solo mm-hmm. euh, war nañ ci gis loo xam ni am na lu ñu ci mën a jàngal mm-hmm. kon pour diir dire tan revenir si jigéen ñi nga xam ne pas-pas bi ñu war a am pour mën a gën a yokk jàppale population yi dans la prévention et dans la lutte contre la Covid-19. Mm-hmm. Euh, ci ndaje yi aussi euh, am na ay événements yoo xamante ne ñu ngi ko dëgmal ay événement religieux euh, notamment Touba màggal bi ñu ngi doon wax ne dina am ak du am mais finalement day am donc xale bi woote à que ñu collecté ay masques yooyu donc te est-ce yi fas yéene nañu peut-être investir localité yooyu ay Touba yooyu peut-être pour comme c'est une c'est événement boo xamante ne chaque année dafay am peut-être ngeen jéem a tamit sensibiliser nit ñi en amont. waaw euh, lay matu sensibilisation bi moom déggoo li ma wax du doy. Mhm. léegi nag événement bu mel na màggalu Touba événement bu mel na gàmmu Tiwaawan euh, dinañ ci def li ñu mën. Mhm. li ñu mën mooy même bu ñu état woowoon tey parce que nous le ministère du travail dañ dañ ko war a wax nag. ñu ngi def un travail extraordinaire seen équipe bu direction protection sociale. ñi ngi liggéey sensibiliser di def ay mission waaye bu ñu woowee syndicat yi ñu jàppale leen dinañ gën ànd ak ñoom ci liggéey mm-hmm. lu mel na ko Touba nag déjà gis nga xalit bi. Eh, yal na fi yàgg te wér mhm. jël na ay disposition mhm. foog naa ne disposition yi bu ñu ko respecté mbas mi dina wàcc mhm. te xëy na lañ ca yaakaar sax dootu ca am waaye nag comme li ñuy wax ba tey un événement reste un événement mbooloo la yal nañ yàlla jàppale ba xëy na du am effet contraire. du am effet contraire parce que gis nañ ne euh, vague euh, bu metti bi amoon temps yële après tabaski bi moo ko waraloon. waaw waaw waaw vraiment tabaski bi moom euh, ñii am na ñu bëri nag ñu déplacé wu mais comme niñ ko nit ñi doon waxee ba ñu demee gis nañ li xew. Mm. la preuve dégg ngeen le directeur de la prévention saa yu nekk lim bi daan yokk parce que nag effectivement tabaski bi la woon nit ñi déplacé wu. waaw man mii damaa waxoon tabaski ji waaye damaa mujj toog. Mm. ndax marché yooyu xat gi gars yi daawoon sax takk masque euh, dugg a génn gi. marché yi moom sanse gi. marché yi moom ulay matu nit ñi takkuñu masque li ñu war nag mooy comme la ma waxoon rek la police municipale nañ dugg ci marché yi yokk jigéen ñi ñu gën a takk masque góor ñi ñu gën a takk masque xale yi ñu gën a takk masque. mag ñu ñu gën a takk masque parce que seen aar la am ñoo xam ne dañu jël seen masque def ko seen suufu manton mm-hmm. am ñoo xam ne seen masque duñ ko sax takk seen poche lañ koy def. wala bàyyi ko mu tilim. bàyyi ko ko mm-hmm. boo génnee nga ñoqati def seen gémmiñ. Mm-hmm. loolu wax ma la wax ma la sax masque mais beneen xeetu feebar bu leen di jot sax duñ ko xam. kon li ma wax rek sensibilisation bi moom du jeex. dañ koy def subaal ngoon continuer moom. waaw vraiment daal ñun syndicat yi. ñun comité de pilotage loolu la ñu bëggoon campagne euh, de lutte contre la Covid ànd ak coalition des centrales syndicales booleeg nag femmes yeeg jeunes yi lu ñu bàyyi kenn ànd ak ñépp ñu dem defi ay campagne au niveau de Dakar au niveau de Thiès et même jusqu'au GCS si c'est possible mm-hmm. loolu daal la ñuy ñaan yàlla yàlla jàppale ñu si may fàttali le 15 septembre la cérémonie de lancement bi au niveau de, de Kermadia, au siège de la CNTS, su la présidence ou sous la coordination du secrétaire général Maudi Guiro, avec les autres secrétaires généraux des centrales syndicales. xam savez, maa ngi leen di fàttali muy CNTS FC Cheikh Diop muy UNSAS euh, Mademba Sock muy CSA Elimane Diouf ak muy UDTS secrétaire général Mariama Diallo. Mm-hmm. donc ñoom ñëpp dinañ ñëw teew ñu def cérémonie de lancement bi bu ñu paree nag kenn ku nekk ñu dem fekki la sa centrale jox la sa bagage àndandoo nag ak kii demaat nag dugg ci dëkk bi au moins ñu def ko du 15 septembre au 15 euh, octobre. Mm-hmm. li des ci émission bi bariwul yegg si nañ sax si njeexital bi euh, peut-être ñu jox la kàddu nga daal di euh, rappeler waat ak peut-être message bi nga xam ne peut-être bëgg nga ko jàllale askan askan wi te peut-être amuñu occasion wax ko ci biir émission bi euh, voilà ñu bàyyi la kàddu gi. waaw Oulaymatou euh, damay gërëm di sant waa réew Rewmi FM ñoom ñuy tey may opportunité ñoo toog waxtaan ak askan wi. Mhm. Euh, di leen gërëm di leen sant ndax lu day na ko mbas mi ñépp di ci wax syndicat yi ku dul syndicat ñépp di ci wax. ñu ñëw àndandoo ak yéen fas yéene parce que nii ngeen def nii yéen a ngi participer ci xeex bi parce que nag loo jàllale rek sensibilisation la kon loolu am na solo may jàll ci centrale syndicale yi coalition des central syndicales bi nga xam ni moo di Guiro mooy coordonnateur en tant que président de CSI Afrique mm-hmm. le li ñu jot bi ñu ko jotee dafa ni secretaire général bu nekk na nga désigner ku la fa toogal mm-hmm. xam nga loolu kóolute la mm-hmm. ñu ñëw toog bi ñëwee toog ñu liggéey ñu ne ah kër kat boo ko duggee dafay am tànk am loxo ñu ne xaaral ñu woo femmes yi xaaral ñu woo jeunes yi may profité ci occasion bi di remercier les comités de femmes. Mm-hmm. bu CNTS Koumba euh, Dikel bu UNSAS Nafisa euh, Samba bu UDTS Khady Badji euh, bu CNTS FC Adja Awa Diop ak man mii nga xam ni dama am foofu double rôle. Mm-hmm. mais maa ngi la présidente Aïcha Nguet moo ma fay représenté. jeunes yi tam ñëw indi seen comité ñoom tam ànd ak ñun ci xeex bi ñu ànd bokk liggéey bi ñooñu maa ngi leen di remercier ndax seen engagement c'est sans faille. Mm-hmm. parce que ñoom bu ñu engagé wul suñu liggéey du yegg. Mm-hmm. kon ñooñu maa ngi leen di gërëm di leen sant mais également may gërëm sama central parce que nag dëgg saa nit ki dafa bokk booy booy xool bi nga may président danga nga wax président des femmes de la CSA. Mm-hmm. waaw may terminer foofu nag di gërëm sama secrétaire général Elimane Diouf. moom mi nga xam ni lépp lu ñu yëkkati en matière def femme daf ciy ànd ak ñun liggéey boo xam ne comité femme CSA da koy liggéey day xool projet bi bu kiiwee mu ne ah ànd naa ci bu amee lu manqué mu ne lii manqué ne kaay ma mottali leen ngeen def lii ngeen def lii may gërëm spécialement nag sama mouvement des femmes ñoom ñëpp sama vice présidente mi nga xam ne ma nga ca marché au poisson marché central au poisson waa ñu leen di wax waa marché Joola Adja mhm. Mariama Faye ñoom ñëpp tout le bureau du mouvement des femmes de la CSA maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax nañ préparer lancement bi le quinze et que CSA dinañ leen ñëw ñoom nañu préparer dix 18 incha allah Euh, le comité de pilotage dina ñëw indi leen seen kit de lavage de main au niveau de la CSA le vendredi 18 incha allah à 10 heures. Mhm. di leen woo ñoom ñëpp di leen invité wa fàttewuma sama chargé de communication ndax xam naa moom mooy jàllale bagages yi ñoom ñëpp fàttewuma kenn. Mhm. di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ni nag mbir mi ñu sumb mbirum àddina la bu ma nee àddina la. loo xam ne day jàppale ay nit loolu àddina la c'est la vie comme ni ñu koy waxee. comme na c'est la vie ñun ñëpp nañ si jàpp te ñaan yàlla yàlla may ñu doole ak kàttan bu ñu ko yeggalee. Mm-hmm. dugg si ak bisimilahi rahmaani rahim. génn seeg alhamdulilah rabbil alamin mm-hmm. di la jaajëfal yow nii sama doom ju baax ji jàlloo jéeri mm-hmm. yow dama lay ñaanal parce que ñaanaloon naa la waaye sama ñaan du doy ndax ñaan du doy bàjjana ñaanu bàjjen du doy si doom te xam nga ni may sa bàjjen taxaw nga palaasu doom respecté nga sa bàjjen yépp macha allah yal na la yàlla lafal cat fa nga bëgg yegg yal na la fa yàlla yeggal. may terminer nag di wax ni tey. bés bu spécial la ci man. Mm, waaw dañ lay wax joyeux anniversaire. donc joyeux anniversaire donc di wax ni tey sama bés bu dellu si la. Mm-hmm. Euh, ma wax na ma ñëpp ñaanal. Mm-hmm. na ma ñëpp ñaanal na ma ñëpp ñaanal ndax euh, foog naa ni comme ni ñu koy waxee rek bés bu dellu si dafa neex. waaw jaajëf lay mat. jërëjëf euh, dañ lay jaajëfal bu baax également di la wax encore une fois joyeux anniversaire donc tey mbégte la ci ñun ñu dalal la ci euh, sa bés bu dellu si di la wax longue vie santé de fer ak aussi réussite ci sa entreprise yëpp. voilà tey ñu amoon mbégte di dalal Abibatou Sylla mu nekk nag présidente des femmes de la CSA nekk itam comité de pilotage pour la lutte contre la covid financé par la CSI euh, doon ko dalal tey ñu fas yéene amal ab campagne boo xam ne ñu ngi ko dëgmal kon lancement bi fukki fan ak juróom ci weer bi euh, ba fukki fan ak juróom ci weeru octobre euh, di la jaajëfal encore une fois di remercier auditeurs yu ñu doon déglu ci la 97.5 di leen dig daje vendredi prochain incha allah ci beneen émission ci Rewmi FM 97.5 ci SOS santé.